Pape Djibril décrire nga justice Sénégal mooy daanaka daal bi kenn waru wóolu bi yées ci àdduna sa votre point de vue Sénégal nga amati droit. moom waxul loolu waaw maay wax. doguma kenn dama ni mu ko décrire. mooy dafa nettali ay dee teg sax bu def erreur ne deewu mbay see du ñoom privé deewu premier vice président conseil mu nekk privé c'est un problème national mais ma continuer ma laaj ko benn affaire. supposons que li wax yëpp dëgg la supposons que si bi sax justice bi sax liggéeyaloon Macky sax bien que ñaari justice wala ñetti justice ngeen fi lim sur plus de presque ñaata juge moom Sénégal wax leen ma ci biir journaliste yi bi ngeen nekk est-ce que ñëpp d'accord na ci ni muy doxee wax leen ma ci biir ingénieurs yi est-ce que ñëpp d'accord na li ñu boo xam ne ña fa nekk ñëpp d'accord nañ ni corps boobu baax na wala nanga nanga amul ci àdduna am na ñuy d'accord am na ñuy d'accord mais loolu du problème supposons que juge bi mooy justice Sénégal baaxul ni mu ko waxee supposons que bu dee def nangam mais de ma kon mu conseil Adji Sarr mi jigéen dëkk ci réew mi mais bu ci si mel noonu bu sentir nañ ko violé supposons li wax nekk dëgg wala bu sentir ko si boppam fan la ma ne fu ci justice boobu wala ñu wax feneen fu waroon dem daa war na woo yaanaam maa wax leen ko pour ñu jàppale ko. <laughs> non damay laaj rek wala dafa waroon a woo député pour ñu jàppale ko. aji saa ba fi ngeen di wax ak yéen ma laaj leen benn affaire ay preuve xam nga yaa ngi wax ju bari bis bu preuve Adji Sarr génne du too wax ci Sénégal Sénégal te jox micro bi maa ko wax ma ko boxoon la le jour que Adji Sarr sortira ses preuves te défie te daa toogaat ma continue ma yaakaar ni. wóolu nga sama ma ma ma du wóolu. ma dafa am war a dindi mu leer rek ni dañoo dessaisir. dama koy tontu section de recherche section de recherche ci dossier bi mais c'est faux le seul maître de la de la des poursuites c'est le procureur Charles euh, gendarmerie mënu poursuivre kenn bu ñu joxee gendarmerie ne ko enquête dañ koy sant enquête. première fois may la ma rek. gendarmerie def na enquête. ki ko porte plainte déglu na ko déglu na kooku dégluwaat ko dégluwaat ko déglu na kam nekkoon ci sanoo ba. déglu na borom salon bi déglu na ki mu àndaloon déglu na jëkkër ji kenn ma des Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne du dem parce que amul immunité parlementaire lan la mën a gendarmerie def loolu dajalewaat dossier bi jox xaalis mooy kii des poursuites pour ñu a lever immunité parce que seen enquête bi rek teg foofu moo tudd a fenn gendarmerie mootul avancer un kenn moo ko des ku war a déglu boo bu doon déglu na déglu nañ foofu. loolu tax ñu convoqué Sock pour déglu ko ma wax la mieux a Sarr va parler man elle m'a dit que. Eh, un mois avant li ma dama koy maa la dem porté ji plainte Ousmane Sonko avant ce jour du deux quand il a porté plainte gendarme ne ko li wax c'est tellement a amee nous des preuves foofu la problème bi nekkee quand Ousmane Sonko allait le deux xamuloo ni on l'attendait pour chercher des preuves contre lui malheureusement pour lui. non mais may gële mais may gële. ça ne lie pas le juge. la. li ma la mën a wax mooy. terminé oui li ma wax mooy. gudd na gàtt na. moom mu neex ko mu naqari ko mu bëgg mu bañ bu dund la ci réew mi dina toog Adji Sarr taxaw yow Sarr la ngay déglu moom muy déglu man may déglu yéen ñëpp ngeen déglu muy wax ndax si di wax wala mu ni moom waxuma am na ci droit mais ndaw si dina wax. Charles. waaw moi j'ai trois... non non mayal mayal Charles après. par force dina wax par aw bi. j'ai trois questions. Euh, après naa développé après non yu gaaw la. waaw du ma du koy poser. on évacue waaw question rapide réponse. voilà s'il te plaît. Euh, euh, Malick yaay conseiller en communication de. de de kii première question de, euh, de du député. Ousmane président je la communication. du parti Pastef. voilà d'accord première question donc am naa si tontu deuxième question est-ce que xamoon ngeen que Ousmane Sonko allait se faire masser. troisième et dernière question boo leen ko xamoon est-ce que vous saviez qu'il n'est pas à l'abri. il n'est pas à l'abri d'un éventuel complot. mais c'est évident. je suis le secrétaire national à la communication de Pastef les Patriotes. léegi nee na beneen bi est-ce que xamoon nga ne. est-ce que nous sommes censés savoir que Ousmane Sonko day nduggi marché day dem massage day dem sport. c'est-à-dire que encore une fois bu fekkente ne foofu la ñuy dugg pour nekk conseil et cetera le président Ousmane Sonko comme man. vous n'avez pas protégé Sonko comme ku man di doon non tu m'as posé une question tu vas me laisser répondre. tu vas me laisser répondre. rapidement s'il te plaît. président Ousmane Sonko. dem na feebar na dem na ñu koy toppatoo ci jàngoroom jooju noonu problème mënu faa am ndax xam na ne ñu ngi koy comploter loolu yàgg nañ koo xam effectivement tu peux me dire une chose su fekkonte ne par exemple ñun encore une fois jàngoro jooju noonu yëgoon nañ ko parce que est-ce qu'il est censé de nous dire qu'il a une maladie euh, qu'il est qu'il a une maladie du cœur et cetera et cetera ñun xam na ne ñu ngi koy complot te son Sonko mi ngi doon moytu complot bi bu baax a baax a baax mais encore une fois gëm na ni fa dem defu fa dara benn ñaar fa dem wóor na parce que këru famille la dal na xelam ci famille fu ñu dëkk la c'est-à-dire que demul fenn fu ñu dëkk la comme ni ku nekk di jógee di dem ci salon de massage wala di dem ci hôtel wala di dem ci boîte ni mu ko sentiré ah. encore une fois léegi nag dafa am lu am solo hmm. mooy lépp lu ñu mën a moytu mii Ousmane Sonko mii ñun mii ku mën di doon si ñun ñi ñu amal affaire parce que buñ ne malheureusement Sénégal kat politique ku man sa morom duma la amul baale amul nangam sàngam loolu moo warul woon nekk. ok allez la politique waroon a nekk. mooy dafa waroon a senn. la politique waroon a nekk mooy li fi Pastef indi argument action citoyenne. et cetera et cetera ñun foofu lañ doon ñun loolu lañ gagné këru sénégalais yi. mais ay combine politique. Mm. ay liquidation politique. xam nga ku ku Ablaye Wade woo ba nga ñëw mu ne la dañ lay posone bul reetaan dañ lay posone xam na ñii lu ñu capable. Allez Malal à toi. yes euh, je simplement wax ak biri ma pour régler une benn affaire mu jeex une bonne fois pour toutes. parce que quand tu me dis tu es l'ami de Macky je ne suis pas son ami je suis son jeune frère. le dit moom. wax na ko ci ay interview waxal ko boppam plusieurs fois mhm. c'est important loolu ko mu préciser ko mhm. Macky Sall ci boppam sama maam Macky Gassama lañ ko tudde maire de Fatick c'est important ma jox la information boobu sama mag ministre de l'éducation nationale moo ko may jabar beneen affaire bi ci topp mooy suñu dëj bii passé Marème fay Sall ñëw na fa suñu lu xew suñu kër bu bu dee naqar bu dee bànneex Marème fay Sall dafay ñëw nous sommes très liés li may li may boo boo amee sa mbokk bu sa mbok wala sa xarit bu poqataanam xeeñe yow yaa koy woo ko say poqataan a ngi xeeñe donc tout le temps tu reviens sur des aspects peut-être sax pour divertir les gens sur l'essentiel de la discussion oui Malal travaille avec le régime je ne travaille pas avec le régime je travaille avec l'État <coughs> sur des questions très précises j'ai travaillé avec le ministère de la Santé sur la sensibilisation j'ai travaillé avec le ministère de la justice ci prison tour et ça je le fais depuis 2005 est-ce que ça ne m'empêche pas moi d'avoir mes avis sur le fonctionnement de ce pays-là parce que je ne fais pas partie de ceux qui ont peur de collaborer avec l'État sur des questions importantes si des si j'ai des connaissances sur des questions liées à la réinsertion sociale si je peux apporter ma contribution ci par rapport ak suma xam-xam je l'apporte et ce travail là ne me lie pas kenn ci état bi du toog ne la jox naa malal nangam pour mu may toogal ci ay plateau di ma défendre mm. kenn ci état du la kenn ci parti bi du la wax ni toog non non c'est important parce que c'est des fois très gênant et c'est parce que souvent bu bu koy wax buuba def koy danaan ko bu bu ci wax il peut le dire mais moi je suis transparent et clair le dire comme ça sur un plateau. Tu n'es pas transparent. Euh, Je te définis les yeux dans les yeux. Mais tu n'es pas transparent bëgguma la wax du ma yow. déglu ma rek du ma yow. mais dafa am mais. moi je pas une entreprise. voilà di ma jox marché. ma nekk millionnaire. ci un petit temps ci diggante. non non non xam non attends c'est-à-dire bu fekkee non bu fekkee xuloo xolu mbalit. non lu waay jekk mën na cee sànni. ça ne se passe pas entre vous s'il vous plaît. mais c'est ce que je dis.

non on wax na li ko neex. non non on déglu naa ko. mais je respecte li mu wax peut-être c'est vrai ça me gêne mais man aussi man naa wax. waaw mais d'accord mais Birima Birima Ndiaye Birima. Malal Birima s'il te plaît. Birima déglul buuba Birima xam nga.